jërë ngeen jëf ki ñu dëxëñ ci moom ay mbóot arab naan ko almaxtum moom la ñëpp di xaar ci ëllëgu Tiwaawoon ak kay toog ca jal ba mboolem yéen kaay ñu xëyandool nañu almaxtum Cheikh Tidiane si jamono ji moom la ñuy déglu ñu doore ko ak Sud Quotidien doore ko ak bi nga xam ne moo di Le Soleil wala bokk yéen bi nga xamante ne ji moom moo di populaire ñoom ñëpp ñu bokk genn kàddu man suur si borom daara ji dem na wàcc na liggéey kay toog ci jal bi ka ñu cay xaar jamono ji moo di Cheikh Tidiane si almaxtum yéen kaay bi di populaire mu njëkk ma Serigne Abdoul Aziz Al Amin ma ngi fay ne moom rek la ñuy déglu ndax nañu leer ne xalifa gi moom moo ca wara toog jal bi jamono ji moom mooy borom ndax ñoom nañuy doxee du ñu ko wàcc ba tey al amin mooy wax moo di ki mag mooy toog bu fa jugee ka ca topp topp ko ca moom Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum moom yéenekaay bii di direct info ne ñu moom la ñu désigné moom la ñu joxar bi baaraam ne moo war a wuutu Serigne Mansour Sy waaye kenn da koo gisul démb ca dëj bañ doon amal sax kilifa yëpp teewoon nañ fa waaye moom Serigne Cheikh Tidiane Sy gisuñu ko noppeem googee yéenekaay bi di libération nañu noppi la goo xamante ne ji dafay jaaxal ñu bari fi mu nekk nii daanaka la ñëpp yi waxtaane moo di Serigne Cheikh Tidiane Sy ana kon lan moo ko en tout cas li leer ba mooy nit ñi ñoo xaar ci réew mi yëpp nag mi quotidien moom it xëy ci woyule wàll ak it li nga ji moom moo ko muy Serigne Cheikh Tidiane Sy Al ñu ko ciy xaar journal bi nañu li leer ba leer bu fekkente ne am na ko war a doon man Mansour Sy moom la waaye nag dañ ko caa déggagul bañ na ko sax ba këram ga ca fan journal bi nañu ay gendarme la ñu fa yónni ngir ñu dem taxawu Serigne bi ci wàllu kaaraangeem gën a taxaw nga xamante ne ji moom moo di wàllu euh, sécurité am ñi nga xamante ne ji jamono ji ñoo ngi ci sécurité génn ca loxo FIP MFDC yi di juróom yi nga xamante ne ji dañ leen a mujj bàyyi yéene kay bii di libération nañu yaaya jàmbe maca dox tànki jàmm jamono jii bu ko neexee mu fëggub dënnam wane na yëf yi moom la bu du toon mooma du sotti ñun ñëpp ñu dellu si waat ci wàllu tàggat yaram ak stade yéen kay mi xëy ak ñun ci mbiri Demba Ba gone gay football ci Newcastle yéen kay bi nañu Demba Ba moo mi nekk ci Newcastle fa muy mujj wala boog la muy fexe moo di génn ci club boobee dem seeti beneen club la tax moo di la koy fay ci koppar jàpp leen journal bi nañu toll na ci juróom fukki million ak juróom ñaar Demba Ba nee na bëggul loole moo tax mu bëgg a kon bàyyi fi nga xamante ne ji moo di ca Newcastle seeti feneen ci leneen mu di tous les sports yéen kay bi débat mardi waxtaan woo xam ne mardi la mu koy séq ak ñi nga xamante ne ji ñoo yëngu ci wàllu wàllu tàggat la muy laaj moo di ndax génération 2000 nekkuñu ci ginnaaw footballu Sénégal di bëgg def ab lobby ngir bëgg ñu bàyyi leen xel ngir bëgg yor football bi di ko doxal journal bi di këcceeg ñun ci ñi ñu fa gënoon a ràññee bokk na ci Aladji Diouf bokk na ci Fadiga bokk na ci Salif Diao bokk na ci ki nga xam ne moo di Tony da Silva bokk na ci ki nga xam ne moo di Ferdinand xam ne ñoom it ay international la ñu woon li ñu xam ci génération 2000 wax nañu ko ma wax ci wàllu lambu sunu lambu dafa mel ni ku xëy di laaj ndax kii di Balla Gaye 2 Triple doom yi Double S ndax du dafa xeeb ki nga xam ne moo di tafatin la tax yéen kay bi dellu si waat wax jamu ko waxoon keroog ca King Fahd Palace Hotel moo di di ko xamal ne VIP yaa ci gën a doon cuune maanaam ci VIP yëpp yaa ci gën a nul loolee tax yéen kay bi di laaj ndax Balla Gaye xeebul tafatin mi ngi ci sunu làmp jërë ngeen jëf